asalaamaaleykum. docteur Sathie Koroma fay naa fi yow. waaw bonjour. jaajëf wax jàmm rek yow dañu ñëw leen sa kër ci tàggu ñu la sax. waaw waaw la rek ah. waaw jërëjëf merci beaucoup. jaajëf waay. jërëjëf jërëjëf Koroma. donc bisimilah. waaw jërëjëf Koroma. yow de waroon na laa woon a woo sax.

courant électrique bu xam dañ ko def yëmale ko ci walu note ndodd Senelec ñu wax ko Aliou joxe na version ñu bëggal yow en tant que ki nga xamné moy le principal protagoniste nga andi ay leeral jëmale ci moom mbir bon euh ali Magam jëm mm-hmm. na amna jabar yorna ay doom mm-hmm. ak ay rakam man euh lima xam mooy euh, mu dal ko place mu am lu muy liggéey mhm. magam jëm la xam na dëkk bi nu muy doxe mhm. comprendre léegi euh, buñ koy wax ay waxu loolu li ma ci mën a seede man waxoon naa loolu du ma ci wax mhm. mais li ma ci mën a seede mooy euh, tukki naa ñëw naa fekk naa nee nañ ma dañu coupé courant ma ne ko lu xew mu ne dañu amoon ay arrière ndax dafa am euh, ay factures yu fi nekkoon te fayuñu ko ñu di koy def ay moratoire. comme ni ñu koy waxee. Mhm, moratoire waaw léegi nag bu loolu. parce que atam 2012 la ba tey. depuis 2012 la affaire boobu xew. depuis 2012 xaw ma 2011 ndax man jàpp ma lool. 2012 waaw mais en tout cas war na mat ay 4 ans wala 5 ans. 3 5 ans waaye lépp lu ci mën a am mooy. Mhm. ay pexe la ak ay sos. Mhm. xam nga rien que. waroon nañoo woo añ ndax mbir moomu am na fi benn jamono yoo xam ne ay gendarme fekk nañ ma fi ànd ak ay agent sénégalais ma laaj leen ñu ne dañuy def ay contrôle ci dëkk bi mais sa kër kese. Mhm. dugg nañu ubbil naa leen visité lañu xool nee naa leen fii amatul courant. Mhm. yéeg nañu ci kaw xam naa ne boo laajee booy dañ la woon panneau solaire yi nekk ci kaw. Mhm. xam nga donc euh, jàpp naa ne loolu ay sos la. bugg a yàq suma. Euh, que sa réputation réputation te loolu yàgg nañ ma xeex mm-hmm. ndax dëkk bi bëgguñu ci gën a bari waxuma ñëpp ma am ci bari bëgguñu gis nit ku baax mm-hmm. dinañu seet lu ñaaw dégg ko ci sa ndot jéem la buggal saaga la ndey wax la lu ñaaw lu bon lu ne dinañ la ko yëg pour déstabiliser la mm-hmm. mais man loolu dérangé wu am na moment yoo xam ne sax dafa mel ni man lay soxla ndax gendarmerie woo na ma ñëwuñu dem naa fa ñaari yoon brigade ñëwuñu ma foog ne mbir mi. ñu convoqué la ba pare ñëwuñu. ñëwuñu après ñu. macha allah ñëwuñu. gisuma leen ba tey mënuma xam affaire bi kan la. Mm-hmm. ay wax rek ay rumeur rek laay def ay ñaar ñetti fan laay door a xam am na doxew ci dëkk bi. Mm-hmm. ne ci sama note mais loolu garaaw bi ma ko waxee suma avocat aussi mu dem ñu ne ma il faut mu ngi si tribunal tribunal dem naa fa ñaari yoon ñëwuñu. Mm-hmm. comme ñëwuñu nag te ñoom ñoo may accuser façon yu demee noonu. mais munoo xam sax kan la c'est pas possible munoo sax comprendre. kon xam naa ne li ma la ci mën a wax daal euh, mooy loolu euh, du ma ci sori. non non du ma ci sori. comme ñoom dañuy tracer. Mm-hmm. mais lu tax jàpp ñu leen gendarmerie ak lu mu xarañee dina ñëw ci kër mu bëri na ne nit ñi dañuy sàcc daal mu bàyyi fi booy depuis 2012 ba léegi. loolu kay xanaa salir suma dara lañ ba mais loolu garaaw nañ leen bàyyi ak yàlla ndax def nañ ko ak yeneen defaat ko ak yeneen. waaw koroom ak dañuy jóge si mbir moomu gis nañ fi. ñu xam ne ay njiitu kuréel gi nga xam ne moo di SAPCO di benn société d'état saa bu kenn si ñoom ke ko jiite amee yow problème sa cëppaandaw ba dañ ko fay jële looy am ñu xam ni est-ce que amul loo xam ne ni saltige korom ak fay làmboo ko jëmale ci ñaar. non man làmboo ko mais saa waay. Mm-hmm. Eh, bu ñu gis koromaak ak kaalam bi ak bubam rek ñu foog ne day dem nii. Mm-hmm. man li may liggéeyee ay doom aadama ci àdduna di leen fay par weer lu mu neew néew ëpp na ñeent fukki nit yoo xam ne am nañu jabar am ay doom bu weer dee su ma leen fayal duñ dundal seen njaboot xam nga donc kon ku ma jéem a xeexi lu dul dara tout tànk yooyu nga xamante ne seeni bàyyi ci man la ni yaakaar sax seen at bu la dalee du lay ci nañu waxante dëgg. kon daal yow si beneen boor. yaa ngi jàppale si dindi ñi nga xam ne moo di ñàkk a yow Sénégal yow journaliste nga. boo demee Mbour boo wëree ci réew mi man du ma toog nga laa def la loolu yëpp amul sens. ça tape à l'œil. waaw amul sens da ngay gëstu rek. waaw duggee léegi si kër gi gis nañ fi askan wu bari yoo xam ne nii dañoo ñëw ngir ñu andi ay saafara si li jàmmal. Koromak Faye bu doon fii si Sénégal Dakar Sénégal ba Chine rawatina sa Inde nga xam ne gis na ne ñi yëngu si wàllu fajum cosaan bari na fa lool mystique ak yeneen yu demee noonu ñu gis ne Koromack Faye mu ngi yëngu si loolu lépp di intervenir si lu mel noonu rek ñu bëgg na xam koromat yow yan façon jàngoro ngay gën di faj wala boobu ñi lay seet si yan jàngoro lay gën a posé ngay ñëw di liggéey ngir am say pastaan bon Euh, loolu xam nga ñi nga fi nekk yaa ko gisal sa bopp ñii ay jinni ñoo leen dugg ñii ay dëmm ñoo leen jàpp te dëmm moom day xareñ bëggul ku baax booy lijjante benn affaire sax ñoom dañuy ñëw pour jéem laa gàllankoor koy lëjal lëjal ko hmm. xam nga moo tax dina am ay sos gisa sama baay ne na man lii nga xam ne moom laa la bàyyi nii nii nii nii. xar-xar fu fa yële. <laughs> waaw dina di comme ni ngeen ko waxee. Mhm. dina la ci sonal lool xam lu tax. Mhm. dañ ci toroxal li tu guddi yi. Mhm. te li ma lay wax mi lu leer nañ nañ nañ nañ bu yàggul rek ah sëñ bi waxloo naa fi ay dënn gis nga lal bi ngay gis. ay jigéen bi ah wasinal lañu fii yoo xam ne ay dëmm leen jàppoon. toj seen butitu njurit yeew ko xam nga moo tax daal da ngay waar faw mu bari noonu mais garaawul. <laughs> waaw koromaat dañuy jug garaawul est-ce que koromaat fay du muy utiliser lépp da koy def si li nga xam ne moo di reen reen donc. est-ce que lii lu bari moo ci nekk. Mhm. lii ay affaire <laughs> lii ay affaire yu. bii yàgg na. waaw bii yàgg na waaw. Mhm. xam nga mais lii mooy lu wóor. waxuma leneen wóorul mais ci li ma gën a wóolu lii ci la bokk. li dama ciy faj. naa ci faj jabet. dinaa ci faj ndoxum siti naa ci am ko am tension hépatite. xam nga ngaana. xam nga. silmaxa. ah saaru katra ah góor gu tële jigéen bu amul doom yooyu yëpp dinaa ko ci faj. te lii lu leer nañ la ndax dama ci am ay preuve. Mhm. yow yaa ngi yaa ma waxal la gis nga yéen ci kër gi bari nañu woo ma leen. buñ delloo am nit du mu def ñaar fukki at nag mm-hmm. war na ci am ay preuve loolu daal moom laa la wax foofu gëm-gëm laa foofu boobu xam nga nit ku ñuul dafa xeeb boppam loolu mooy problème bi mm-hmm. ndax dañuy bëgg a jël yëpp teg ko ci nasaraan bi mm-hmm. affaire bi du loolu léeg aussi il faut ñu am lu ñuy jàngat te xoolaal suñu maam yi lañ bàyyi woon du question bu bokkaale yàlla wala lool yàlla moo wàcce lii ci àdduna garab la njëkk a sax lu ne mu ngi ci kayit bi ngay bind sax garab la Mhm. mbubb mi nga sol coton la mhm. kon ñun loolu la ñuy dañoo gis ne wala bokk liñ dégg moo di Koromack Faye mooy jiitu président sant yi nga xam ne ñoo fekk baax si siin ndaka yëg si saalu Koromack jiitu kenn xam nga yàlla moo ñu wax de waaw seen wax la rek dañu am cofeel ci man di wax rek mais duma président kenn xam nga président lan la mhm. sama bagage yi moom yàq guy sàmp moom man maay président mais yi ci des moom mhm. ay déggoo la rek ñuy respecté ma ma respecté leen mais du ma président kenn mhm. waaw président bi benn la ci réew mhm. mooy le président Macky Sall. moom rek mooy président. Guy Samba maanaam dinañ dem. Guy Samba moom man maa fa jiitu. waaw dinañ dem sa wetu Guy Samba ndax am na reportage bu bari bu am solo boo xam ne nii. def nañ ko fële nga xam ne mooy Pointe Sarène. di sa exploitation. mais yow da nga mën a dem nga ba point de ah. jël fa ay vidéo jël fa ay ah, seede am ay te non am nañ ay témoignages yu am solo ñu ngi jégalu bu ah, xam naa dañuy ñëw rek suñu caméraman bi wan ñu ko laata ñuy continuer li nga xam ne moo di waxtaan bi Konkora mag ñoo ko gisandoo gis nga image yu am solo yooyu nga xam ne moo jëm si kon foofu nga xam ne moo di Pointe Sarene. waaw lii de sama filaawo yi la. waaw filaawo yi la xam nga ñun ñi nga ah. xam ne ñoom lañu ñu àndaloon moom Cameroun ay Guinée lan gis nga image yu am solo yooyu gis nga. filaawo yi bi moo jógee géej. waaw moo jëm géej ci plage moo jógee ci biir boo mbartaloo tuuti rek dugg ci géej gi gis nga garab yu am solo yooyu nga xam ne yaa ngi ko jëlee fu sori ñëw jëmbat ko doon loo xam ne nii verdure bu rafet la doon na ci barab yu xam ne nii sax mën naa doon carte postale gis nga liggéey yu am solo yooyu di complexe hôtelier boobu nga xam ne am nga yéene def ko fa waa gis nga ko gis nga suñ gars yi moom bàyyi ñu benn roq roq roqaat yëpp wane nañ ko moom wax nga dëgg sañ ci bari travaux yi xale yi nga xam ne dañuy daan seen doole ñu si bari jóge gi nduur la ñu si bari jóge bu sori waaw nduur sax jot nañoo waxtaan ak moom moom de moom nee na sax moom bu ngoonee bu ñu hmm. bëggee reer dañuy marastalu dem ci géej gi rek ci place bi napp ñëw la waaw gis nga Ndour moom xam naa war naa bëgg. mbaam moo yow fayeen bi yéen a gis nga mbaam yeeg ah, yooyu. ah booy maçon yaa ngi nii ñuy liggéey liggéey bu am solo. ah saa waay moom dox nga ah. yi may seen sax dafa mel ni. ah gis nga bâtiment yi waaw gis nga bâtiment bi batiment yu am solo. waaw yi dañ leen di kii. waaw bâtiment yu bari la kaar kaar. dalle après def tiwil ci kaw waaw tuile yi ci kaw waaw waaw mais il faut ñu dalle ko préparer pare vue d'ensemble hmm. baa ngongu am solo lol doon lu romantique di tubaab di wax lu romantique la ah euh société bi ñi wax SAFCO ñu tudde ko société d'aménagement man dama gisul lu mu aménager dama gisul sax ben machine bu ñu bind société bobu aménagement ak lu mu def lu dul téye toli nit ñi kenn mënatu la sam nangu sofi baykat yi xaw ma société courtier la. waaw ginnaaw loolu euh, may ñaanaat état bi doomi sénégalais bu mel Koromak ngeen fas ñaan taal sen oto ñëw seet si leen ni mu liggéey fi ngeen xam ni kii mi ngi liggéey te ku jar a la ci def parce que sénégalais yu bari ñu ngi ciy tedd mu di fay ba ci man miri di wax ak yow ab retraité laa yor suma njaboot gu ndaw ñuy mais man moo ma jël mayit luy aménagement fii man la koy jox ñëwuma ma fi nag pour neexal ko ñëw fa daal li ma gis laa waxta yàlla tax parce que gis naa ñuy jàppale ñoo xam ne duñu dara te fii lañ ko war a def juddoo ci Sénégal yaroo ci Sénégal am sa alal def ko ci sa biir i mbokk bokk kook say mbokk moo ñu gënal tubaab yi ñuy jaay suuf si taliba ba ñëw ci complexe bi moo jël xaalisam financé ko ba ku ko neex nga jaar dem rax ci dolli li xew ci village yi moom mooy jël xaalisam defalal village yi yoon ku soxla ci moom ngay ñëw ceeb loo soxla ordonnance fi mu toog lay toog fii day fees jàll ci chantier bi ba lu mu am bokk ko lu mu xëy lu mu am suba ba ngoon jot dana ko bokk nit ñi kooku nag président maa ngi lay ñaan nga jàppale ko muy koram fay ay tubaab di la liggéeyal te ñu ñu daan liggéey tubaab yi loolu sax dafa jar sax ñu décorer la ci médaille parce que ñun tubaab yi moo ñu daan liggéey la duggu ci gaal yi di voyager dara taxul ñu def ko dug mbon ñàkk lu ñu def la sa sa baay jur la nga nekk ci kër gi dem ba màgg war a tekki tekki woo nooy obligé def doo fi toog léegi ni ngay mujj def mooy Sénégal ñi ñi yori entreprise Sénégal jël doomi sénégalais yi mais duñ leen jël ñoom it du ñu am temps wu qualification parce que qualifi diggante fi ngay jànge sa bappa néew na doole diggante boobu sam njàng dootul ma a continuer jàngi métier fi nekk balay métier maa mokk say morom ñi jógee Europe ñëw ni la boo demee Europe lii la lii la lii la lii la lii la taw ñi jógee Europe di ñëw Sénégal bu ñuy ñibbi ñi ñu bàyyi Sénégal ñoo leen di lewal paas buumu njam nga ni ma jàngate moy, bu buumu njam nga dogna na yow nga jël sa sofu mam sa toolu bay def ci lo xamni ni ay borom keur nañ ci mën am seen dépenses te ci biir réew mi la lo ci amé nga wat ko ci biir réew mi dama ni hmm. gatché ngalama lebi woko amé lo fi kenn bor waaw lolou nak, ñi ñi takal ordre mairie ñay woy ci radio ba ak di tag président ñu di leen tagg ordre national du mérite ak ñay football ak di basket ñooñu dañ leen a wane ci télé bi mais télévision Sénégal képp ku ci naa fekkul dafa war a jël télé ñëw ba fii. ñaata borom kër laa dajal fii ñu fay leen ba ci man mii di wax ak man entreprise Sénégal yëpp liggéey naa ci man naa daal li man ay entreprise yi entreprise yoo xam ne bu doon suba ba fi laay fanaan. ay hmm? tubaab ko moom. compagnie sucrière laa njëkkee. Hmm? ci Mimra. Hmm? waaw compagnie sucrière laa njëkkee. teg ci Socosim. teg ci Hmm? waaw te pa ami problème li ma lay wax waaw ñooñu te ñu ngi leen di jàppale ñoom li hmm? may wax ku ma xam wala nga dégg ma war ko xam compagnie sucrière la jóge def fa 19 ans dem sokosim jóge Sococim jóge ICS ICS laa jóge ñoom ñëpp am problème ku ci nekk to dem ñu wax ko hmm? ñu maa la wax li may wax kenn du ko weddi société yooyu yëpp am problème suuf si nga jël jaay ko li nga tolloo def ci foog loo am def ci waaw loo am def ci sa suuf la yow nga uti ñëw def ci ah ñeneen bi ci tedd mais boo jëlee suuf si jaay ko ñun dootuñu bàyyeeti dootoo sàmmati léegi jur amatul tool amatul suuf si tubaab bee ko jënd def ci benn nekk at ba at lay ñëw. waaw ah, ko kooku ban rendement la amal te bu ñëwee lam fiy ñun diine lañ fi nekkee mooy mooy def euh, dem jeex ah rax ci dolli ñiy ñëw tubaab yi ñëw fi sax dañ ñoo amalul njariñ parce que màggat la yoo xam ñoo xam depuis quatre bu doon ay ingénieur la ñu defal ñu formation bu doon menuisier baax bu doon tailleur mais ñi ñëw c'est des vieux ay ans ñoo fi ñëw man ñi fi dajal bi may ñëw ñooñu ñooñu ñun lan lañ ñu mën a andil jeunesse bi taxawaalu bu ñu ñëwee wane ni Europe nii la mel Europe nii la mel te fekk Europe melul neen di ñaan président de la république Macky Sall mu jàppale korom mag waaw waaw lii teen ndox bu neex moo ci nekk gis nga yàlla yëpp ba li mu moom loo nekk loo nekk da ciy feeñ xoolal géej gi ni mu mel nga gas fii mu jox la ndox bu neex lii ku mu yéemul sax dootul yéemu kooku macha allah ku ñëw dagg naan man mii dama cee naan bay bëgg a dee di <laughs> ku ñëw dagg naan voilà waaw léegi soo ko defoon nag loo xam ne lee ñu def bâtiment ba lee may seen ñu tabax ne eggul dara nekku ca eggul ñu bàyyi ko ca biir ñax ma kenn mënu faa jariñoo gisoo fa garab gisoo fa ko ba kañ ah dee te yàlla rayu la waaw ñu fekk kuy liggéey ab liggéeyam di gis jaamu yàlla nga ne ko nag doo ko fi defee. bon daal li may ñaan nguuru Sénégal nañu taal seen oto ñëw ba fii fay manoon na ne man saltige laa am naa sama xam-xam mën naa cee tedd ba dee waaye defu ko lam cay jëlee daf koo andi def boole ci nag yamul ci entreprise bi nit ñi di ci liggéey daf ci boole it ku feebar mu faj la daf ko ci boole ku feebar mu faj la. tey it nag ku mën a tooñ di tooñ di tooñ ba fekk ku ñu wërta tooñ nga tooñ ko it ah tooñ baaxul xawma waa saf ko lañ koy wax xawma saf ko bu ñuy tooñ nañu seet ki ñuy tooñ bu dee man mii man nañ maa tooñ mais ku mel ni koro mag nañ ko moytu waaw man maa yoroon machine yi maa doon yoroon aménagement bi li ma fi li ma fi gis man sama bët may ma ko ak ñi ma nekkandaloon ñuy liggéey fii place bi dafa am boromam te boromam moo ko moom moo ko yor ku ko bëgg bëggu kook moom ku koy bañ bañ kook moom. def Koromack ñoo ko déggandoo ki nga xam ne moo di góor bu jàpp doon góor bu xam ne nii liggéey na si bari yu nekk si réew mi na ko léegi si biir vidéo bi. fekk baax fële sa bosaat liggéey ba retraité ñëw nga employé du moom dong wéetu foofu tax am na ndaw yu bari yoo xam ne ñu nga fa yu daan doole nga leen fay weer wu dee am na ñu ne xam ne ñi sax ne ñu korom am nga leen fay ba may weer kon amuloo kenn àq jëmale si moom malim mbir ñu bëgg ngay joxe sa impression ginnaaw bi nga xam ne dégg nga yooyu leen seet mais yow da nga sax hmm. Jo, det er litt med dem i point så det er ikke en investigation. jere jëf ma leen di remercier di remercier góor gi Diaw moomu de passage ndax dama ko xam mu nekk ak ay liggéey ak ay tubaab ñoo seeni machine ma soxla loolu xam ne sénégalais la mu ngi pousse société boobu xëy na sax moomu ko mais moomu ko waaye bu mu fay daan doole léegi nag bu ma ko gisee ma xool bu ma nekk kii góor bu baax la nit ko xam

sa njuga saaxo jàpp ka ko fa wóotu di sa doom bàyyi Paul Faye jëmale si bokkar bi moo ko fa wóotu saa boo amee ñoom problème rek cëppaando ba moo di ñoom dañ leen fay jël koromam lan lay jëfandikoo non xam nga man tax duma dee bëgg a dugg ci débat nit parce que loolu du sama décision euh, du sama xalaat mais nee naa la ne parce que sama bàyyi lima la mën a wax ci tek ko fu wóor kuma ci song ren ba déwén barke sama baye yalla suñu borom dina la wan parce que tooñu ma sëñ bi su so xamanteni sa papa dafa genn addu say mbok diko jaay ngay jaay nga jënd ko pour bañ su fu non la waaw pour bañ jëndat ko bi pare bañ nasaral yi saax saaxe ko di yone suñu doom yi man man nek pour liggéey fa jël doomu réew mi duggal fa duggal fa ay millions lo xamni sax duma tok di la wax li laa fi def ñu walbatiku ko duma xex bi fi ma tollu ni ñoñu bul fatte ne am nañu ñu fa nekk foofu mooy seen bureau foofu lan sen dom yi ak sen jabar yeb ci sama loxo bi yalla xamna ci nañ ñu yaakaar kon bo ñewé nak ne dañ toroxal korma nan ko wer yalla du nangu yalla du nangu loolu la mais yoy man nekkuma ci dara su ki nga xamne lan fa fal bes di mettre Aliou saw est ce que am yaaka ci bon foofu mën naa am yaakaar. parce que li tax mooy. am lu la war a non mais nag vraiment li ma wax ak li mu wane nekk na signe bu rafet. kon mën nañoo jàpp ne parce que gën wàll yu bëri liggéey nañu président de la république seen poste képp lañu nekkee yaa ngi dégg mais moom bi ma woowee téléphone daf ma félicité loolu dafa neex. mu ne ma gis naa garab yi nga gis naa yoon yi nga fi def gis naa emploi yi nekk foofu kon kooku day dox toogul ci bureau rek xam nga woo ma remercier ma kon donc mën naa jàpp ne kii nit ku baax la te ni mu continuer nii bu déglu man ko ma xeex ma xeex la barki sama bàyyi lu leer nañ laa la wax mais nag signe bu ma woon. c'est un bon espoir. waaw mën nañ jàpp ne kii. dafa jóg pour liggéeyal askan bi. Mm. ci li ma parce nit ki. xaalis sax boo ko yónnee bu ñëwee nga ne ko merci mais garabu kooku yooyu nga xam ne maa ngi ko jëlee ci réew ak réew indi ko ci dëkk bi fay ay nit di ko roose ba mu toll noonu ah yow euh, man bi ma nekkee ci tool boobu xale bu góor bi nga doon ne waxtaan nga ak mo mooy ki ngay wax nii ci problème mu euh, courant bi ngay dégg noonu. Mhm. kooku mhm. kooku judduwul. Mhm. kooku xool bu ñaata. yàgg na yàgg na mais loolu yëpp mu ngi soxlawuñu kooku. niñ may naxasaay teg lu ñaaw ci suma der ndax kilifa bi fi jéggi ñu teg sa ndon lu bon dafa am ñoo xam ne duñ dem te kenn du dem mm-hmm. loolu mooy seen bi mais euh, pour ma ñëwaat ci jugé bi nga wax rek xale boobu euh, kilifa boobu ni ma wooyee vraiment man kontaan naa. borom ak saltige sa kàddu mujj laa ko door. jërëjëf jàkkale bi. bon remercier leen. Mm-hmm. di aussi décourage. Mm-hmm. ci jaar-jaar bi ak ni ngeen di fonctionner mhm. yàlla leen yàlla jàppale mhm. comme ni ñu koy waxee rek eh, am na sax woykat buy naan journaliste eh, liñ la wax bu ci yokk dara bu ci wàññi eh, dara loolu sëñ bu rafet la objectivité waaw voilà donc am na ñoo xam ne nag maanaam boo leen joxee lii benn yaakaar rek ñu jàll di rey keneen teg kenn loolu moom aussi maa ngi dañ sañ mbokk journaliste yi ñoom itam. moom balaa ñuy bind article aussi. te comme ñun ñëpp dañu am ay njaboot. war nañoo dem waaye loolu day dëll rek bind. da ngay laajte ba xam lan mooy raison bi balaa ngay bind aussi loolu am na ci solo. jërëjëf kon jërëjëf maa ngi lay sant. jërëjëf ok ndax war am ñu bari ñu toog fii. maa ngi leen di jéglu ñoom ñëpp quoi.